ay neen promoteur dañoo chantage boy de dañ na booy ku dugal duñ la teug <laughs> en ah, perte lola gaay wax de hein? gars ñu ne rek écoute mais malheureusement la fête elle est gâtée on n'a pas respecté les temps réglementaires euh, les les temps non mais c'est vrai 30 30 ans non non joué wuñu ko waaw malheureusement c'est ça ah. bon mais ça va victoire victoire waaw ñu ah. ñaan yalla rek gagné chantage bi nak gaay yi nee nañ da ngeen a ku ci dugal gars yi yéen a wax booy booy ku ci dugal dootu ñu la tëkk. ah <laughs> non loolu gars yi wax de. non baal de waaw. Ibulaay da ngeen a santage booy yéen a booy nag bu ngeen dugalee dootu ñu leen teg waa Géej yaay. kenn leen loolu. ah kenn waxu leen ah, loolu. ah loolu gars yi wax de déedéet. lamb ñu leen ñu dóor dóor métti. <laughs> wuy booy yi nee na da ngeen leen chantage yéen a wax leen bu ngeen bu booy dugalee doo doon leen tëgg làmb moo tax dugaluñ. non ñi def nañ ñu mën de. Ah, tax booy dugaluñ de waa géej waaye dañoo taxaw de. ñu mën de ah ñi mënoon ñu dara amul différence d'âge. ah déedéet amu fi. rek leen booy. déedéet déedéet amu fi da ngeen leen mën dóor leen. waaw ah, waaw musique feeñ na nag. musique am lan yow ñu ngi tiiroo. yéen a leen ëpp yéen a leen ëpp yow saa yow lan la foo féete ban sëriñ nga ci gaañi lu tax waa Géejawaay génnee la. ok waa Géejawaay xum la laa leen def. ah yaa tëj kaay. tëjuma dara. mais a a wax booy booy ku a wax booy ku ci dugal duñ la tëgg waa Géejawaay yéen a du la toog deux ans du la toog du la tëgg loolu la loolu dong la yéen a wax booy ku ci dañ leen napp deux ans menace menace looloo tax booy dund menace mais Fall loolu la booy wax de booy papa eh booy dégg nga dégg nga wuyul wuyul Fall wuyul Fall papa eh booy mandel ba bi waay mas bi jeex ah dégg nga dégg nga loolu moom ñoom ñoo ko wax dégg nga loolu Fallou Ndiaye ñoom ñoo ko wax booy nee leen waaw ku ci dugal dégg nga li nga wax booy mandel mandel ko doo la tëgg loolu non loolu pas normal. loolu du yoon loolu du yoon. ah non daf maa nekk affaire waruñu woon mën a. loolu moo tax booy dugal c'est honte. c'est honte kay mais aaree ngi toj liiru liiru liiru mais Fall loox Fall fu ngeen jëm coow am na coow am na coow am na. mais mais mais liiru affaire yi liiru coow am na. non non xam nga loolu mooy problème bi. ñoom menace bi. lii fo la jël ko def ci menacé booy yi ah, moo métti menacé bi ñu ci menacé booy rek. ne booy bu ci dugal di ngeen toog deux du la tëgg. du la ko def. surtout moom dañ na ko papa boo jëndee dañ ko boo moom yow moom. Eh, dootuñu la tëgg. Oh. lii waruñu ko def. c'est pas normal loolu moo tax ñu gagné booy ah. mais kaay nañ dem ñu xool réaction yi non liiru mer na mais mais liiru lu ci sama yoon bu lu da ma dimbali ma waaye loolu looy wax ni man sama yoon yow aari moo ñëw dugal fii toj terrain bi a aari jéey aari jéey toj na fi ay waaye niiru jéey jéey seen gañe na la mais mais mais mais affaire yu menace pour la affaire yu menace. menace ñu leen tëgg ñu ñuy gañ. menace menace ñu ne bu ngeen jugalee doot ñu leen tëgg. te géej booy amuñu kenn amul combat. moo tax booy rate. waaw oh. ah waaye promoteur yi gagné nañu waay. mais Mourou Baye Fall. waaw lu tax menace booy yi nag. non menace amu booy yi ñu ne yéen yéen wax. ne bu ngeen promoteur yi ñun promoteur ay xale lañ. ñun mago ñu bëri ah. de. ay morom génération lañ de. ah te ñun dañuy entraîné dañuy football. dëgg la. ah mais boo gisee match bi dañoo taxaw keroog bi ñu def reporter waaye yow beneen match mooy gën a raw beneen match bu ñu di jàppee suñ suñ xaw ma suñ beneen adversaire. moo gën nooy. Rufisque ah Rufisque dañ koy dóor duñ ko gagné par série mais nag ni ngeen ko bëgg a jàppoo di menacé bu gaa kenn dañoo a fubal terrain bi du fenn ah c'est le travail waaye hmm. c'est ça mais mais mais mais mais booloo bi ah. tëj dafa neex ngeen ko gis dafa neex parce boo xoolee promoteur yi Pape Abdou Fall a ngi fi kilifa si lamb Dieye ah. production yi Fallou Ndiaye ngi fi Modou Baye Fall a ngi fi Ibulaay ngi fi hmm. Ousin ngi fi ah. ak yeneen promoteur yëpp ngi fi ñun ñëpp ñu ñëw menace eh, menace yi menace waaw duñ la tëgg du yoon c'est pas normal du yoon du yoon du yoon du yoon du yoon du yoon

ah mais ku daal a ngi image a leen mën da leen mën ñii mën leen dóor leen yu ndaw ñii nag ñii am yow ku ci gën ñetti jabar ñetti waaw ñetti jabar ga yow xale yaa ma dóor sa ñëw nga jox ma 20000 ni ma bul kay kay yow yaa ma jox 20000 ni eh, liir yow fu mu toll eh, eh, man mënuma comprendre jéy seen gaña la may la ba pare di football aari ay eh, aari na terrain bi li ñu wax booy la rek aari jéey toj na terrain bi ah eh, wil am wil am wil am xoolal Modou Baye Fall jox Maguette Seck vingt mille la ko bul dugal dégg nga lool am nee na vidéo yi génn dafa mel ni seen na ci waxal waxal dama ne ku ma seen buróon ak moom <laughs> dégg nga so mo ba gi na nee yaa ngi ci mais da nga am sefa naar nag mais jéey toj na terrain bi. <laughs> moo daan ñan ngeen am yéen ñan ngeen am waa Boy Dakar. waa NCB waa. mais Mouranda match boobu nag match bu sérieux la de. ah match bu sérieux la xam nga ni foo agréé la kaf la mais ku ñu gagné tamit. ñoom daaw ci phase de poule yi lañ toogoon ñun ci leen toogoon. ñoom ren génn na ñun ren génn na. waaw. ñu daje nag. mais du yomb de. ah, ah du yomb ay booy Dakar fa nekk yankaw sabala de ndigal gaa yooyu. du yomb. suñu équipe bi daal sa li ma waxoon rek am naa ci yaakaar. mais affaire bi nag ren ren dafa mel ni da ngeen ko jël au sérieux. non dafa sérieux entraînement ak yooyu. sa waay a ñàkk ñu dem entraîner te ñoo ngi ci. boo gisee gars yi li ñu joué ak ñu toog si baa bi nga xam ne ñun am nañ équipe. dëgg la waaw ah, man arbitre rek laa doon kii terrain moom. te bokkuñu arbitre bokkuñu. bi mooy maa ngi ko dem jëli ndax. maa la ko wax ñu teg fii suñu baaraam yàlla bu ñu cat topp quoi mais Diaz Diaz ah, nekk géewaay yu bëgg ñu toog ñoo bëri ñoo fi bëri ay noonu mais lu tax gars yi menacé leen ne leen bu ngeen dugalee duñ leen tëgg sa booy dugalul sa waxoon naa leen ko nag ah. ci bi ba nee naa leen promoteur bu ñu wax ba dóor leen dinañ dinañ namm waaye xëy na lii moo gën ndax ñu bëre lu ñu foogul woon nag waaw eh, mais lii lan la moom moom na waaw génn na mais man dama war a sama turandoo génn dama war a sama turandoo génn eh waay mais ku invité leen ko moom bu ñëw fekk si leen ah, ah. man kay dama koy recruter kon que géej waay grand tey ndam li na de rusloo lan ma nag ah mais laa bet waruñu nu woon gars yi te man géej waay keroog li ma gis ñu football ak gars yi beneen la tey ñu ñëw mu demee ni ñun dañ naan danoo aay danoo aay mais menace <laughs> oh, yi la. naka de aay. oh gaa ngi réunion. kon ñu ba déwén. réunion ñu ba déwén warul demee noonu de. parce que yéen nee nañ yéen ay équipe bi gën a baax ngeen ñëw toog premier tour. nga ni man de mais lu tax ñu menacé leen ne leen ku dugal duñ la mais jéey nga noon jéey mënoo gagné booy ba pare dugg seen biir de. kii du gagné ba pare dugg di leen kokkali. li gàllankoor gàllankoor. ah. Eh. Eh. Eh. kay eh. marange eh. mais bul ko clip boy nak bu len mom rek ma ale ah, ah. ñu def ci ale bo gis amara ko mom sa musique jariñul dara non non parce que defuñ ko noy démé casamance ñew tardu andi wo fi dara ay ya ma bet ndigal yow rek ya ma bet li lo len digal te defuñ ko sëriñ gi la waxon ni ak mbokk ak ñu jënd ko andiwuñ ko te si stade bi dañ ko war a defee dugal. loolu la mais Imulaay bu leen gañe booy nag ba pare. du leen kooku ñu leen fay suñu xaalis ñu bëree par ñu bëgg ñu gañe. ba pare du leen sarax yi. sarax boo def na. trois sëriñ ñu maanaam trois sëriñ ngeen gën trois sëriñ barke Alxuraan trois sëriñ ngeen gën. aywaay waaw eh, Youssou Mbaye laa jël. waaw yow génn nga bul kookali digal bul kookali. non mais nag yàlla baax allé boobu am na retour. am na retour mais nag dañuy dàq entraîneur bi man damay ñoo xam ne. léegi ñun match entraînement may leen ko ñun ak yéen. reporter ak yéen yéen moom yéen moom lu mu doon bon ñoo leen moom